bokk ci projet yi gën a mag ci liggéey yi nga xamante ne bii Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér sumb na ko gannaaw ba mu wuutoo kilifaam yu baax yi muy liggéey boo xamante ne bii day dëppoo ak ñaan gi nga xam ne Serigne Touba ñaanoon na ko ci matlabul fawzayni wajxalhu dabban maskana mi taallumi wa mawdihal fikrati wa tafahumi liggéey boobu nag moom Serigne Mountakha gannaaw bi mu ko jébbalee entreprise bii di Touba Matériaux te Serigne Abdou Lahad Ka di dëkk bu sell bi di Touba jiite ko ñu tegoon xeer wi juróomi fan ci weeru décembre atum 2018 ñu nekk ci weeru mars atum 2019 ñu ñëwoon nag defal leen ci benn tukki nemmiku ngir gëstu liggéey bi fan la toll mu mel ne moom Serigne Abdou Lahad diiru ba ko dénkee liggéey bi ak léegi lépp loo xamante ni bii ay matuwaay la ci wàllu jumtuwaay boroom xam-xam yi mu ko war a siqal moo xam ñu jóge ci biir réewum Sénégal wala bitim réew lépp bàyyi na ko xel ñu fas yéene ñëw nag xool bâtiment yi nga xamante ni bii moo nekk ci plan bi fan lañu ci toll ak nan lañu ko tàmbalee. bii nag dafa dañ ko diviser en six zones mu nekk zone yoo xamante ni ah wax dëgg yàlla ni ko sëñ bi euh, misaale mooy que ni euh, dafa am euh, fi ñu naan institut islamique ba pare am majalis. nga xamante ne xam-xam beeg yooyu fa lañ koy jàngale ba pare na doog a ñëw nag ñëw nekk UFR en science islamique ah, et arab

ak bâtiment bi fi war a taxaw ak ñi nga xamante ne mooy suñuy partenaire yi nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllu technique di def ay étude ah ñu defee ñoom seen descente de charge gis nañ ni que un mètre yooyu ñu gas bu ñu fa tegee bâtiment bi ëllëg si biir ah, na mu waroon yàggee du ko yàggee ñu ne léegi taxaw leen nañ woo ñeneen ñi nga xamante ne ñooñu lañ tuddee waa géotechnique ah nga xamante ne ñooñu ñoo amee xam-xamu suuf ak suuf lu mu attan ak suuf bi ban la wala du ban nangam nangam

6 mètres 11 sur 3 mètres quelques d'après mon chef de chantier Tel l'olite aussi gis voyez l'épaisseur épaisseur béton bi mi ngi 75 cm. ah yoo xamante ni dañ le béton et gis ngeen ni ñu ko ferrailler benn euh, semelle presque maintenant, en ferraillage il na lu euh, une tonne et demie de fer dina jël ci béton. 21 mètres cubes 21 et mètres cubes bu ñu ko xaymaa donc mètre bu multiplier par 2500 euh, kilos presque dina dina jige man naa ni eh, su ma juumul ay ay cinq tonnes benn semelle bu ne dina jige ay cinq tonnes waaw mais nag am na si nag yenn semelle yoo xamante ni semelle yu ndaw yoo xamante ni yii dinañ jël ay deux tonnes yii dina jël un tonne mais yii nga xamante ni day jël loo toll si sept semelles comme ni ko chef de chantier bi confirmé mais am nañ ci loo ramat ci bâtiment bi parce que mu ngi jëm troisième étage léegi nag ci biir loolu actuellement fii nga xamante ni moom lañ toll nag ci avancement des travaux yi nga xamante ni murit yëpp fi nekk ni kenn ku ci nekk ba sëñ bi kàddoo kenn ku ci nekk ba ci man mii di wax a yow it 37 mille yooyu ñuy wax nga xam te ne taalib bu mu nekk daf ko war a joxe chef de chantier bi joxe na ko ouvrier yi seen ci ginnaaw it kenn ku nekk joxe na wàllam kon nag dafa am beneen bët boo xam te ne ñun ñu koy xoolee avancement des travaux yi dañoo waxoon ne ne dañu soxla bâtiment université bi ñu defar ko ci deux ans mais ki nga xam te ne mooy Abdou Lahad Ka non seulement dafa jël euh, doomi sénégalais rawatina doomi Touba. parce que ba muy liggéey euh, feneen dafa jël ay doomu tubaab yóbbu leen fa dafa wàññeekuwaat doomu tubaab ya mu yóbbuwoon feneen ñëpp mu indiwaat leen indi leen fii ba pare woote waat ci dëkk bi ni képp kuy doomu Touba loo xam ci loo xamante ni yaakaar nga ni mën na ci li ah, am na pàcc na nga ñëw parce que ñëw bi ñaari fànn lay amee mooy que ni boo liggéeyee non seulement dinañ la fay li sa àq ak sa yelleef mais aussi dañoo indi nag ay partenaires yoo xamante ni ay sénégalais lañu jugee feneen fu dul Touba ba pare indiwaat yeneen xeet yu mel ni ay turc jugee turc ñëw yooyu yëpp nag ñu bëgg a dajaloo. boole suñu xam-xam boole suñu technologie boole suñu méthodologie pour nga xamante ni kenn ku nekk la nga am ñu seet la ca baax ñu jël ko boole la la baax rek euh, taxawal ko comme ni yàmb di def euh, euh, garab. waaw bu buggee defar lem garab gu mu dem rek day seet la nga xamante ni moo am njariñ ca fleur ba mu jël ko dajale loolu yëpp moo tax lem di am donc nag Abdou Lahad Ka lem la bëgg a defar fii ci biir loolu it nag mooy instant bi ñu toll nii nag ah wax dëgg yàlla ñi ngi euh, sant ouvrier yi nga xamante ni ñoo fi jot a nekk parce que nag gis ngeen heure bii ñu ngi liggéey huit heures ba ba quatre heures mais terewul fu béton taxawee Quand doit arrêter coulage béton à ah, Bosuba Nous continuer à 20h, 21h, pour 22h. Mais pour Delsi Wadnaxi, UFR Sciences Islamiques, nous avons bâtiment de trois étages. Nous avons un numéro 1 nekk côté aile gauche am na ci kanam tuuti da nañ fa àgg muy numéro 2 nekk ci digg bi am na euh, ca beneen pàcc ba muy numéro 3 nekk ca euh, euh, ca wàllu wala ñu tudde ko el aile droite nag bu ñu paree loolu nag doog a dem nag ca Majalis Majalis aussi dañ fa am centre ay salle d'étude yoo xamante ni ñaar ñoo fa nekk ak restaurant ñaar ya fa nekk ak restaurant nag benn bi dafa nekk ñaari salle d'étude comme bii ñu boole leen def ko benn. mu nekk salle d'étude grand modèle nga xamante ni dina guddee lu toll ci presque ay cent quatre-vingts mètres ah, ba pare nekk trois niveaux foofu it aussi même fondation bi moom moo fa nekk donc loolu it dinañ ko gis ba pare amaat fa nag beneen salle d'étude bu ndaw boo xamante ne moom it aussi avancé na. gannaaw bi ñu bàyyi ko ci bâtiment boobu mu am beneen bâtiment bu am solo boo xamante ne bii moom itam liggéey bu am solo lañu ko fa yéene liggéey. alaikum. Donc, euh, pour toujours continuer à vais euh, Nekon, ah, maintenant présenter on a un projet de façon générale. Les gens qui ont été en train de faire UFR, sciences islamiques et arabes. Ah, nous avons le bâtiment numéro 1, bien que nous toujours 72 ah, mètres, à peu près sur 14 mètres, par un euh, R plus 3. ah ñu jóge fa léegi ñëw si bii nga xam te ne mooy bâtiment centre d'étude numéro 2 numéro 2 bii nag moo nekk ci digg bi. Mohamed Bongen dit que c'est fini, actuellement en pourcentage d'avancement des travaux actuellement ñi Semeli à 79%. dix neuf à 62%. Et aussi c'est des euh, pourcentages réels puisque déjà euh, au niveau par exemple des semelles ah, sur 119 mètres cubes de semelles, on a déjà coulé les 93% def rapport bi nga xamné 79% là. amor supporter aussi sur 16 euh, mètres cubes on a fait les 10 mètres cubes à peu près donc est nek 62 mètres cubes 62% légui nak ci bir lolu euh, di lan xamal ni euh, lama lañ waxon fele rek mo nekkat fi man ngeen ko gis ni bi nga xamanteni coulé nañ ko ba paré donc c'est des fondations yo xamanteni wax deug yalla bâtiment yi fi nek yépp ay bâtiment R+3 mais ñun ñu yag liggéey ak euh, yàgg fekkee gis nañ ni euh, moyens yi nga xamante ni moom la commission technique bi demandé ah, ñu bañ a yem rek ci trois niveaux moo tax ñu euh, demee def descente de charge boo xamante ni du ma leen mën a wax ni leen temps de étage mais dañ ci sóoraale ëllëg. ah li dal jumaa ji dal yeneen euh, gox yi ci bir Touba dina dalat fi parce que ñun suñu génération la ñu liggéeyal waye nak ñi ngi liggéeyal nak aussi génération bi nga xam te ne ñu ngi war a ñëw ba nga xam te bu ëlëk jotee bu ñu ñewé bu ñu bëggé teg dara ci kaw dinañ ko fa teg té aussi bu ñu bëggé soppi mbub mi dinañ ko soppi té duñu am ben euh, jexi jaxa motax bu nga xolé poteau yi ñu fi def ni ci bâtiment 3 étages xam ngeen ni euh, wax dëgg yàlla moyens yi teg nañ ko fi c'est ce lépp it le basirou, Mountakha ki nga xamanteni moy suñu xalif ñun ñëpp ah, actuellement mo joxe ndigal boobule voilà. voilà fi à peu près ça fait 1200m2, mètres carrés ah, sur maintenant répété en trois niveaux ah. donc ça fera à peu près 3000 et quelques mètres carrés waaw muy bâtiment UFR euh, science islamique euh, bâtiment numéro 2, nek ci digg bi liggéey bi laaj ay matuwaay ak ay jumtuwaay yu mat sëkk yoo xamante ne bii dana tax ñu dab ci seen mébét loolu nag sëriñ Abdou Lahad Ka bàyyi na ko xel lool fii ñu toll nii actuellement moom mooy aire de préfabrication des agglos ah il est bien vrai que nag euh, agglos yi sax dafa nekk agglos yoo xamante ni ni ñuy euh, liggéeyee bâtiment yi ak euh, ni ñuy defaree maanaam euh, euh, semelles yi maanaam mooy dàll yi hmm. ah ak ni ñuy defee poto yi li nga xamante ni mooy tànk yi ak nga xamante ni ba pare ceinture ko ah ba pare nag def ko ay poutre dal poutre daal mu jug ci kaw normalement nekk na loo xamante ni Euh, birig yi daanaka bariwu ci solo parce que birig yi dafa mel ni loo xamante ni ab tàppaat la rek mais terewul nag ñi ngi liggéey birig yoo xamante ni dafa mel ni ay birig porteur la moo tax boo gisee machine bi ngeen gis nii actuellement loolu moom moo ko waral birig yi ngi ngeen gis nii fi mu nekk nii dafagul euh, ñaari fan démb lañ leen liggéey bon am na loo xamante ni nag dolliwaat nañ ko ci nag ci wàllu xarañ parce que bis bu nekkit aussi ñu euh, dolliwaat xalaat ah, suñu xel dem na ci ndaxam mais terewul nag équipe bi nga xam fi nekk te di bi ay poto ah, euh, mbaar ko def fi ay euh, krantendeng ah, pour que benn brique du woow ci naaj waaw moo tax yi nga xamante ni ñi ngi ko jot a liggéey te euh, mbaar mi ñëwagul luñ ci birig rek bu naaj bi tàngee rek dañ koy muur ba pare nag arrosé ko ba mu tooy voilà donc mooy. fiir firndeel Pastef ak matuwaay ak fulla joo xamante ne bii am nañ ko ci liggéey bi waaye fonk gu ñu ko fonk bokk na ci xalaat yi nga xamante ne bii. génne nañ ko ci bâtiment bi waroon taxaloo ak forage bi. asalaamaaleykum ah, donc toujours ci même euh, con ci même euh, continuation bi rek ci la ñuy nekk parce que ba léegi ñuy wax ak yéen ñu ngi ci UFR science islamique et arabe bi ma leen waxoon ni leen euh, ñetti bâtiment ñoo fi nekk yoo xam te ñooy bâtiment essentiel ci première phase bi jot nañoo xool salle d'étude numéro un bi. Euh, ñëw si salle d'étude numéro 2 bi moo nekk si digg bi léegi ñu ngi salle d'étude bi nga xamante ni mooy salle d'étude numéro 3 bi ñëw ci euh, beneen wàll bi salle d'étude bii nag dafa am tuuti rek loo xamante ni moom moo ci nekk mooy que ni ci plan bi nga xamante ni mooy plan de masse université bi ah ñu ko defaree ba pare ndaxte dañoo ñëw ñu fekk fi benn forage forage boo xamante ni bi ñu implanté bâtiment bi gis ngeen piquet yi nii gis nañ ni que euh, bâtiment bi ak forage bi daanaka ay 2 mètres la woon. te forage bi xëy na ndaxam sax ma nga ba trois cent mètres suuf lay jëlee ndox waaye nag on ne sait jamais euh, bis dina ñëw ndox moo muy jël bu koy muuc di ko xëcc li ko jege ah euh, kenn ku nekk di nga xam ne que toujours dafay mel ni suuf si day wàcc te boo jëlee bâtiment ñetti étage nga teg ko fa mën naa bañ a def dara ren déwén ak déwén jéeg mais man na toog fii ak juróomi at wala fukki at ndox ma wàññeeku bâtiment bi daal di xaw a rës moo indi ay fissure wala leneen am ci ah tey suñuy doom ak suñuy sët ak yu mel noonu moo fi nekk te bu boobaa it aussi dinañu ah kan moo ko liggéeyoon moo tax biñ fi tolloo ba ñu tracé ko ba pare amul benn bâtiment boo xam te nag tracé nañ ko ba pare bien que ñu ñooy techniciens yi te Abdou Ka en personne du ñëw fi xool. ah ànd ak it aussi ñi mu war a àndal surtout nag rawatina ci yenn sëriñ si ah ñu def ñaanit pour que li nga xamante ne moom la ñu sumb te sëñ mu taxaat digle ko vraiment yàlla musal ñu si seytaane ba ñu àggale ko si jàmm mais biñ defee loolu ba ñëw fii ba tracé bâtiment yi ba pare ba waroon ko gas ñu gis ni dafa jege forage bi ci la ñu toog ñun nañu woote bi ñu woote ñu woo waa Aynu Rahmati woo waa hydraulique bi ñu ñëwee ñu bokk ko saytu xool ko ñu ne bâtiment bi kon na ngeen néggandiku ñu def ci ay waxtaan bi ñu ci defee ay waxtaan ba bërki ba semaine ba la passé ci lañ mujj arrêté ni daal li ngeen loolu Abdou Lahad Ka euh, signalé leen ba ngeen teg seen baaraam tax ngeen woote loolu nekk na bâtiment bi na bàyyi lu mu gàtt gàtt gàtt fukki mètre ak ñaar ba fukki met ak juróom na ko bàyyi forage bi ba nga xamante ni au moins dina nekk loo xamante ni bu amoon benn genre mouvement dina xaw a bàyyi bâtiment bi loolu moom moo tax nag bâtiment bi xaw a am tuuti retard ba tey si suba ah la gaa ñi ñëwaati encore ba puusaat nañu bâtiment bi des na rek ñu def PV bi nga xamante ni mooy wane ni confirmé nañ dëggal nañ ni fii ngeen ko war a def baax na ñu signé ko rek ñu daal di tàmbali. fii nag bokk moom itam ci bâtiment yi nga xamante ne bii moom la ñuy saytoo njàngum majalis bi ba tey itam firnde la ci qualité liggéey bi ak yéene. asalaamaaleykum. Euh, toujours pour continuer rek ci li nga toujours à l'Université euh, Touba ah, donc nous avons xool UFR sciences islamiques et arabes gis nañu ñetti bâtiment yi. Ah, ah, ba tey jii actuellement ñu ngi toll si zone bi ñuy wax majalis majalis moom man nañ ko wax gone ak Ndakaaru du xam lan mooy majalis waaye gone Touba ku ko ni majalis moom dina xam lan mooy wutu majalis parce que boo demee université Touba doo ko fa gis ah, université Ndakaaru Ndiaye doo ko fa gis mais fii Touba sëñ Mountakha dañu moom mënut a ñàkk majalis ñi nga xamante ne dañoo def institut islamique jàng alxuraan ba nga xamante ne wàcc nañu ci daara pour que tegante mbagg kanga nga xamante ni moom dafa dem jàngi école directement ah, moom dina jaar majalis am ànd ak yar ak teggin ah, ak xam-xam boo xamante ni bu ñëwee ba tegante mbag ak ka jóge feneen bu boobaa dina ko won loo xamante ni ku jaarul fii doo ko mën a am donc fii moom mooy zone majalis bâtiment yoo xamante ni ñoo fi nekk yu mag ak euh, restaurant bi nga xamante ni moom la xale yi di jëfandikoo bu ñu demee ba toll fenn fii ci biir Majaalis bi nag gis ngeen bi mooy bâtiment bi nga xamante ni mooy euh, bâtiment grand modèle bi ah euh, salle d'étude grand modèle ah ah nga xamanteni mom dafa melni ni dafa dañu jël ñaari salle d'étude ci yenen zone yi boole leen lënkale leen def ko benn salle d'étude mom mo nekk ni légui gis ngeen fi aussi benen xam-xam la bo xamanteni ak benen système bo xamanteni aussi ah wax dëgg gal ñi ngi koy santé nak ki nga xamanteni aussi moy suñu directeur général ah ñun ñoy technicien yi mais terol bi mu xolé ni feulé gis nañu yag nañ fa son nañ fa ñi ngi gas ba ay 2m50 gis nañu suuf sangi daanu ak lépp mu ni moom dina defal système bo xamanteni ñun. dinañ koy xalaat mais ñu ngi koy defee ci bâtiment yi nga xamante ni day nekk bâtiment sous-sol nga xamante ni boo ko defee nii day nekk radier général ah donc def fouille générale mom mu ni nag système boobu la bëgg appliquer fi ak lu mu cher cher cher ak lu mu metti metti suuf ci nga gis mu gas ko yëpp génn ko day liggéey ci biir suuf ba paré bu pare delloowaat ci suuf ci mu melni li mësu ci am donc lii lañ nane euh, fouille générale en radier donc nak mom na dindi suuf ci yépp ci 2 mètres bu ngeen gisee matériel yi war a liggéey yëpp dañ ko dugal ci biir ba nga xamante ni instant bi toll nii fouille bi mat na 100 pour 100 waaye pour cent des fouilles actuellement defar nañ ko ah léegi nag euh, ñu ngi commencé nag di liggéey nag euh, semelle yi comme semelle yi daan gis fële mais semelle yi ah. nga gis ni fi mu nekk nii mën na fee toog ba carré euh, fondation bi pare ku ñëw di nga jàkkaarloo ak moom contrairement ak fële parce que fële ay pax la woon boo liggéey rek boo xëyee suba mu suulu mais bii moom ah am bari na ñoo xam te duñ ko nangu parce que da naan fàng loo fi def moom ku ñëw dina ko gis kuy photo dina ko photo kuy xool dina ko xool tànk parewuloo donc lu leer nañ ñi rek moo fi mën a nekk moo tax nag rawatina jamono yële passé waxoon naa leen ni leen am na ku ñuy wax Salif Diallo nekk coordonnateur technique nga xamante ni mooy dox diggante euh, commission technique bi ak entreprise bi ak approvisionnement yi ak di saytu li nga xamante ni moom mooy euh, euh, qualité yi yooyu yëpp dafa nekk nit koo xamante ni def na li ñu naan PAQ génn na système yooyu yëpp ba nga xamante ne lu ci nekk ak phase bu ci nekk daf ko jàpp benn par benn mën naa ne tëju na ci bureau daal daanaka lu mat une semaine pour defar document boobu document boobu génn na bi mu génnee aussi moom ci boppam mu jàpp ni du mën a toog moom. Euh, àggale loolu ci la demander indi ku wax geuy mo nek ni sama wette ma len koy présenté mom la jël comme adjoint coordinateur ah, mo ngi ni moy sëñ geuy donc mo ñeu aussi renforcer équipe parce que équipe bu fekkente ni renforcer nañ ko ah, liñ nane ku doli ciéré doli ñeex. donc nag wax dëgg yàlla moom it bi mu dikkee ak léegi une semaine la toll waaye indi na fi xam-xam indi na fi yar ak teggin te aussi indi na fi collaboration li ñu naan nag euh, euh, yenn euh, waxtaan yenn pas diisante yeeg yenn mbëkkante yi ci biir liggéey mënta ñàkk parce que il faut ñu di ko def pour kenn ku ne boo indee sa xam-xam ah ñu mbëkkante ba xam ni que jël naa lu baax li jël ci yow jël nga lu baax li ci man nañ ko boole ñu samp ko mu nekk li nga xamante ne mooy lu baax li. yeneen matuwaay yoo xam ne nii sax sóoraale ko woon. ci batiment bi nga xamante ne bii mbooleem li ko wër dañu ko mujj gas ngir mën a def seen liggéey la mu waree. bii ñu taxaw nii nag moom la ñuy wax salle d'étude A1.

dina obligé daal seet la ko neex ak la ko naxari def ci les grands moyens les grands moyens mooy lan mooy ñëw tegget gas fi bâtiment bi war a taxaw yëpp mu gas ko en pleine masse ah génn suuf si nga xamante ni dina mën a jàkkaarloo ak li muy liggéey ñu liggéey fondation yi ah ba mu jeex bu boobaa ñu suulaat ko ba mu normal compacté ko ba nga xamante ne bu ñu ci tegee ay caroog ak leneen bu ëllëgee di def benn affaissement donc mooy pax mi ngeen gis nii bii moom it ah, ah, fi mu nekk nii bant yi ngeen gis nii commencé nañu daaj chaise yi donc fii semaine prochaine bu nga ñëwee di ngeen fekk ni exactement la ñu liggéey fële rek moom la liggéey fii mais ci meneen anam am na ci ay semelles yoo xamante ne dina dem ci quatre mètres cubes yi ci a yoo xamante ne dina dem ba ay bokkul yoo xamante ni nag semelle moom ci ñi ko xamul mooy aw dàll rek dàll yu nga xamante ni mooy ci la ñuy samp jën bi jën yu mën a taxaw nga xamante ni bu ëllëg ëllëgee ak poids bu bâtiment bi mën a am ah, lu mu pousse ah, dàll wi dàll wi dina mën a lu mu gën a yaatu rek. liggéey bii nag diirub muy yàgg fas nañ yéene lépp loo xamante ni bii dana fi bàyyi ko ñu toppal leen ko weer wu nekk ngeen mën koo xam mën koo gis itam gisin wu leer.